di ko décrire ñu ñëw poser la question ci tubaab nga ne dégguma tubaab loolu doy na waar ñu laajaat ko beneen laaj mu tontu tontu bu invasif